abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, se ne ngeen jàmm ci jotaayu xibaar bile ñu daal àddu ci ñeent fukk ñeenti doomadama yi nga xam ni woon nañ leen nag rawatina lu jóge ci manifestation yi amoon file ci Ndakaaru wala ci Sénégal ak li ko wër sax nag mu mel ni tey jii foofee ca tribunal bu Kaolack la lañuy dem ndax ñoomee fa lañu taxaw ña fa nekkoon nag bokk na ci ay taalibe ay artisan ay marchand ambulant chauffeur ba ci ferrailleur commerçant ak i élèves ak ñeneen sax ñoo xam ni euh, fi mu nekk nii tey ji taxawoon nañu nag foofoo foofee ca tribunal bu nag Kaolack ngir janook procureur bile ñu ni nag ña nga xam ni ñoom lañ fa bàyyi nag moom mooy Cheikh Seck Mamadou Keita ak Mor ture ña ca des ñëpp dañ leen rek bàyyi ñu dem seen kër ñooñee dañ leen rek toppee maanaam tribunal bi daan na leen juróom benn weeru kaso yoo xam ne duñu ko daal di tëdd ak ndàmpaay bu ñuy daal di joxe rek lu toll ci ñaar fukki junni.